motax dafa am ben ki bu wax le web a desservi l'humanité gis nga ñi créé les réseaux sociaux ñom ñoo ñoko bannir ñi ko créé sen bop ñoo ni réseaux sociaux yi mo gëna amul écran ñom école yi sen doom yi jàngee voile d'or lañu ko tuddee du am télévision duñu am ordinateur duñu yor téléphone ci tableau la ñuy jàngee créé bi parce que duñu xam ñaaw ñaawteef ak mbon gi nekk ci réseaux sociaux yi dañu ko xam dafa am ay image yo xamni do ko gis xam nga nit ñaar la dafa am lu ñuy wax subconscience lan moo tax nit di baax lan moo tax nit di am iman budul khalat lan mo fa installer parce que religion bo xamni sax xamul dara mais dafa gëm yàlla xamul lu yàlla amul jàngul ben téré mais ngëm yàlla gi ci mom kenn duko dindi lan mo tax lolu kon yalla am tegul ci xam-xam tegul ci khalat mais pas-pas la bu nek ci xol gi leer la leer gogou nak la ko fa installer ci xol ba nit mën am iman pas-pas te gisul fenn yàlla iblis xamna lan la exactement léegi nag day def étude naka la ñuy dindee loolu coppati ko ba iman bi nekkoon ci moom disparaître muy utiliser nag ay métaphysique moo tax dina utiliser forme yëpp dina utiliser la musique musique boobu xam nga musique dafa nekk loo xam ne dafay egg foo xam ne seytaane mënu fa egg ci xol musique dafay egg ci xol foo xam ne seytaane wu jotu fa léegi seytaane bu fa bëggee jot day ànd ak musique dugg fa day ànd ak musique ñëw bu dafa parce que bu nit ki di déglu musique son bi onde yooyu dafay nekk xam nga lond musique son onde la onde du dara lu benn perturbation des molécules dans l'espace ben ondulation mi ngi mel ne nga sànni xer ci ndox ni mi defee ay ron ron non di dem ni dem lool rek moy onde mo waxee ni noonu non noonu lay defante du wër ma duñ ko dul gis parce que gaz la bi ci ndox la ndox mo gën visible mais bi ci gaz la gaz su bët mënu ko gis motax do ko gis mais même onde yi la lool nak bu ñëwee moy yëngal membrane bi ci sa nopi bi mu tëgg ci ben l'enclume mu teug ci ben étrier tëg tëg tëg mu yobbu ko ci dans le cochlée le cochlée bi ci bir nopp bi la nek ben yax bu ron ni melni ni comme yaxu yéet buron yi am ben liquide bu ritax bu ci nek am ay cellules yu sa cellules sax ay karaw ñu leen di wax les ciliés onde yoy bu va bu dalé ci karaw yoy da koy vaseline karaw gi day yëngatu écrire manam message sonore bobu ci ben pulsion électromagnétique ben pulsion magnétique Mon lay doon mu yobbu ko ci cerveau bi cerveau bi capté onde yoy sécréter ay liquide ay hormones nit ci so gis ni dégg na teng teng teng ça veut dire que am réaction lan motax musique mën joye jooyloo nit wala mën a nit wala mën merlo nit lan motax ki déglu di joy te xamul limi wax parce que dafa am lu ñuy wax les métaphysiques xam nga tey jii su ma dikkee rek ni ah sëñ Maxtaar man de bopp bi day metti nga am loo wax ëf bopp bi sedd sëñ bi loolu logiqueul logiquement da nga naan mais loolu nu mën a nekk mënul nekk parce que c'est ça la métaphysique mooy loo xam ni nekkal na dara te amut loolu benn contact loolu nag musique daf koy def ñoom xam na ko moo tax ko yàlla di ko wastaf jisman istataata gis nga bu bu musique bi ñëwee moom seytaane day ànd ak onde yooyu dugg ci nit ki nag fekk xol bi tijjeeku na

effectivement motax lu yalla aramal rek mhm. dafa am lu muy yak sa appareil mu la conserver merci xam nga xam nga doomu adama yalla daf ko bind ci ñaari énergie la gis nga courant ni nek plus moyenne lepp lo gis mu am plus moyenne comme niko yalla waxe waxee ak jigen bu la nexe plus moyenne nga tuddi ko góor ak jigen lepp niko defé non nit tamit ñaari mbir la ñaari énergie la plus moyenne la moy ruh gi ak nafs bi nafs bi nak motax mu meuna a bëgg bëgg bëgg nit bëgg ay otoom jabaram doomam këram nangam nangam nafs la koy bëggee waaye nag yàlla moom ruux la koy bëggee mais ñoom ñaar nag ñoo daje ci benn place bi muy xol kon kon àddina ak yàlla dañuy daje ci benn place bu xol moo tax nit ci xol lay bëggee yàlla ci xol lay bëggee jabaram léegi ñaar yooyu moom ñuy wax les deux nœuds de contraction des parois du cœur dafa nekk ñaari nóor ñaari neer yu jóge bii jóge ci nafs bi bi jóge ci ruux gi ñoom ñaar ñu daje ci xol bi ñoo tax cœur bi di pomper mu ñuy wax les nœuds de contraction des parois du cœur ñi nañ loolu ñooy tax cœur bi naan tëkk tëkk di pomper xam nga appareil buy pompe boo gisee rek am na machine bu koy tourner mais xol ba nga juddoo ba ba ngay am quatre-vingt-dix ans mooy pompe buy pompe musta taxaw tëkk tëkk ba quatre-vingt-dix ans musul taxaw benn seconde appareil boobu lan moo koy doxal mooy ruuxu nit ak nafs léegi nag nit ki liy jógee ci moom ci yàlla ci jaamu yàlla yi comme ni nga ko waxee noonu ci ruux gi lay jaar ñëw ci xol bi mais liy tukkee ci moom ci àddina ci nafs bi lay jaar ñëw ci xol bi ñaar yooyu xëccoo boobu nag moo fa nekk moo tax nag zikr boobu mu la wax nekk li nga xam dafay balee parasite yi nga xam ne ñoo nekk ci nafs bi ba nit ko noo nafs bi nekk nafs al mutma nekk nafs bu teey mu nekk nit ku dal am sérénité am sago bu fekkee nag tilim tilim yi àddina yooyu la topp bàkkaar yi àddina yi ñuy jàkkaarloo guddeeg bëccëg yooyu dafay am ci moom benn jeexit boo xam dafay tilimal nafs bi bu ko defee nekk dafay nekk nit ku agité wu moo tax image ak son nekk lu am importance te ñun gis nga tabax bo gis beuy wu rombu auto bu jàll dem nit kuy dox dem amna ben benn bu mu def si soit positif ou négatif ñoom nak loolu dañ ko gëm bu baax. exactement parce que statut ñom dañuy wax ni le Souleymane franc-maçon la statut euh, dafa nek ben œuvre bo xam da fay permettre nit mu commencé di jamu ben xërem inconsciemment d'abord mais jëmmam présence am dafa am ben impact bu mu def ci yow. gis nga bari na dëkk yoo xam ne def nañ fa ay ay statut waa dëkk bu ñuy xëy kaas ni fi jóge yëg nañ daal statut bu mu fi ñëw ba léegi dañu étouffé wu dañuy énervé dañuy stressé ay dëkk yoo xam ne statut bi dañ ko dañ ko fay jëlee gis nga kii tu Eiffel tu tour bi nekk Paris bañ ko fa bari na ñu tuxu ndax affaire bi moo leen doon gêné monument bi ci Wakaam bañ ko fa defee am na ñu bari ñu tuxoo Wakaam ñoo xam ne monument bi da leen di gêné am ñoo xam bu ñu gisee dañuy tiit seen fit bi day rëcc parce que ay barab la yoo xam ne barab yu doy waar la seen grande mosquée la dañ fay

identique bu original bu ancestral na yi dañoo amoon ay obélisque l'Égypte antique dañu amoon ay obélisque ville ci àddina bi yëpp dafay am ay obélisque day représenté ak pay mais dafay nekk aw saaga boo xam ne si dafay mel ni seytaane da koy saaga léegi na fa ñuy sànni jamra obélisque moo fa nekkoon ñu koy dóori xeer muy seytaane mais tey dindi nañu obélisque boobu xam nga fu ñu ko yóbbu fa ngay ñaane foofu ñu def fa benn gaaluk noox moo fa nekk fañ doon sànni jamra gaaluk noox lañ fa def léegi jël obélisque bi ñu doon sànni xel nga xam mooy seetaan yóbbu ko Arafat fa ngay ñaane c'est-à-dire liggéey yooyu la ñuy def te ñoom xam nañ ni la mi ngi am ay jeexit ci doomu aadama yoo xam duñ ci conscient loolu mooy li nga xam mooy li gën a naqaree combattre naka ngay def ba jàkkoonte ni conscient nit ñi am ci conscience rek mooy meilleure solution bi ñu xam ne lii ñuy def lii lañ ci jublu tey nag boo gisee àddina bi yàqu loolu la mooy communication bi moo yamatul ci benn limite